jógee fii ku fi teew mën a doon ku nekk fii indil na la ndeysaan léegi. macha allah. boole koom nag bu ñu jógee fii ñoo ngi jëm ngor waaye bu ñu jëmee ngor ca bunt ba. haylallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi jën jëf lay maxtaar warkàlla macha allah sang bi seydi mouhamadul amin ibnu seydi aboubacar ibnu seydina limaamulaayil mahdi alayhi salaam nee na bismillahi rahmaani rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. sang bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na ñu ngi ubbee bismillahi rahmaani rahim. baat bi yàlla tànn di ko ubbee ay kàddoom yal yàlla barkeelal na sunuy kàddu yal na yàlla barkeel sunu jataay bi ubbi gi ko ubbee sang bi nee na yal na ñu teeri ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen wax jàmmi yàlla yàlla na nekk ci yéen defe naa bi nee na ku ñaan jàmm yàlla ci bërëb bu ñuy wax jàmmalaay ñaan nga ko fi ñu ko war a ñaane ci ban bés bés bi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam waxoon ajibu da'iyallah